asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal di siyaare Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ko wér ak mboolem njabootu Serigne Touba ak yëpp ak mboolem xalifa généraux yi nekk ci biir Sénégal yëpp Fall si na analyse yi nga xam dañ leen koy defal saa su nekk ñu ngi jaaja bu baax a baax sunu mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi partout dans le monde fépp sénégalais nekk rek jaajëfal nañ la siyaar nañ la. woy leen di abonné ci chaîne bi rek di Fall 94 Walf Sénégal bu ko defee rek vidéo bu dugg rek ngeen man cee ànd ak ñun ñu ngi jaajëfal bu baax a baax sunu mbokk yi nga xam ne daanaka ne chaque jour bu ñu dugalee vidéo dañuy def ay commentaire gis nañ ko bu baax a baax bu ñu fi nekkee di tudd tur nag euh, yaakaar naa ne dañ fi <laughs> ndax gars yi moom macha allah gis nañ daal taxawaay bu baax a baax ci seen bi waaw waaw tey nag ñu jëm fan tey ñu jëm ci lii nga xam ne nii moo di théâtre Sénégal waaw théâtre Sénégal Euh, nga xam ni tey boo xoolee euh, euh, théâtre Sénégal bu njëkk ak théâtre Sénégal lu léegi maanaam série yu njëkk yi ak série léegi waaw fi ñu ciy commencé rek mooy ñi nga xam ne ni ay bindkat lañ waaw dañ leen di jaajëfal ndax ku nekk xam ne ni bind moom yombul waaw ñi si beneen bi ci des tamit mooy ñi nga xam ne ay acteurs lañ ñooy joué ku nekk xam ne liñ ciy daj tamit mu nekk lu met te loolu yëpp li ko waral rek mooy kenn ku ci nekk yaa ngi xool loo yóbbu sa njaboot loolu rek moo waral euh, mbir mi demee noonu euh, waaye nag euh, comme dañuy def ay analyse bëggunu rek xam nga di waxe noo xam ne daanaka mën naa ne ñoom buñ ko déggee danañ ko gisee neneen te du demeewul noonu dañuy xool rek li nga xam ne ni dana dëpp ak nii nga xam ne nii fa la Sénégal jëm ak xale yi nga xam ne nii dañ leen roy ci côté yëpp nga xam ni ni ngeen ba maanaam euh, fi ngeen toll ci théâtre bi ak li ngeen ciy def ak yooyu yëpp dañ koy gis te buñ ko gisee dañ koy capturer ci yéen dañ koy toppandoo moo xam terme yi laa yi ñuy wax ak yi ci aju yooyu yëpp. waaw bu nu demaatee ci ginnaaw ku nekk gisoon na fi théâtre yi fi amoon euh, ay théâtre daaray Kocc ak yeneen théâtre yoo xam ne mën naa ni euh, wax dëgg yàlla ay ay jàmbaar yoo xam nekkoon nañ fi. di bàyyi seen waar ci aar bi comme nu ngeen ko nu ngeen koy waxee ndax aar bi moom daa yaatu euh, muy aaru théâtre bi euh, loolu nag euh, daanaka mën naa ni jafe woon na ci ñoom ndax ku xool lii nga xam ne ni moo di théâtre yi fi amoon muy théâtre yi nga xam dañ ko daan jëggaani mën naa ni film la rek film yi nga xam ne ni dañ ko daan jëggaani Eh, di ko indi suñ réew mi nga xam ni daanaka eh, film yooyu ci jamono yooyu noonu eh, kër goo daan dugg bu film yooyu commencé bu la neex sax mën naa ni mën ngaa dugg sa kër ga sàcc seen i gaz lu ci mën a am te duñ duñ duñ duñ ko xam ndax dañ ci doon concentré wu bu baax moo xam mag ñi la moo xam ndaw ñi la muy lu ci mel ni film Marimar ak yeneen ak yeneen yu baree baree baree bare waaw kon euh, bu jamono di dox di dox di dox nga xam ni euh, tollaan nañ ci monde boo xam ne monde internet la euh, yaakaar naa ni fi mu toll nii gars yi ci réseaux sociaux yi lañ nekk ak maanaam daal ci plateforme yooyu nga xam ni maanaam série yi dañ fay daw nga xam ni nekkaat nañ ci beneen monde boo xam ne nii yaakaar naa ni ca jamono ya nga xam ne yàgg ya théâtre lañ daan wax waaye léegi jamono yi léegi yi nii série théâtre la wax nga xam ne maanaam kon Euh, euh, euh, jamono dafay avancé beneen bi ci des tamit mooy ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax comme li ma wax maanaam yéen da ngeen yor métier am noobu vraiment aar dafa metti te ku nekk xam ne comédie lu am solo la bégal nit ki baax na trop waaye nan nga koy bégalee beneen bi ci des tamit mooy boo xoolee léegi série yi lu ci ëpp rek mën naa ne daanaka mën naa ne série bi da ko seetaan ba mu jeex doo ci jëlee benn njariñ waaw euh, loolu nag li ko waral mooy dañoo xaw a limité côté yeete bi xanaa xamoo maanaam tey mën ngaa boole euh, comédie ak yeete comédie mën naa nekk ci biir euh, série bi ak yeete waaye na ci yeete bi di ëpp ndax loolu xëy na nag dina metti ndax ku nekk xam ne fi mu toll concurrence dafa am tamit ci mbirum série yeeg yee ci aju voilà moo waral mu demee noonu mais acteurs yu mag yi li may wax nii buñ ko déggee danañ ko xam bu baax ndax am na ci acteurs yu mag yoo xam ne macha allah euh, seen i langit euh, façon euh, waxin ñoom dañ koy maîtriser dañ koy xam am na ci ñoo xam ne sax boo leen bëgg a jouer loo xam ne ñoom xamuñu ko ci ñoom ndax dafa am ñu leen di topp ñooñu noonu tey yi bu waxee façon langue boobu ngir lañ cay am loolu du leen ko jaral te li may wax ni ñoom xam nañ bu baax beneen bi ci des tamit moo di daf ci am nag ñu ciy wàllu yaan si ñoo xam ne wax dëgg yàlla xaw ma jàng nañ formation art wala jànguñu ko ndax xam nga nit da ko gis mu nekk ci dara nga jàpp lii moom da ngay ñëw rek soobu noonu xëy na nag ñooñu mën nañoo ñëw xam nga amaat ci benn gis ndax nag boo xoolee ñaari façon dafa am na ñoo xam ne ni danañ defi formation defee ñu ne côté bu nekk jàngee ko nu ne waaye nga gis koo xam deful formation bi dugg ci am ci tur lool loolu nag suñ borom moo koy def waaye ñu xam ne daal série yi moom wax dëgg yàlla kenn du baaxul ndaxte wax dëgg yàlla yéen a ngi def am solo te mën naa ni message yi ngeen di jàllale fi ngeen koy tourné li ngeen di yor ni ngeen di solo yooyu yëpp bàyyi leen ci xel bu baax xam ni dafa am ñoo xam dañuy capturer loolu te dañ koy royee ci yéen moo tax sax mën naa ni di jouer loo xam ne suñuy réalité la lu am solo la waaw ndax bu ñu demee ci maison euh, production yu mag yi fi ñuy jàllale yéen ñu mën faa jàll mais tamit bu fekkee dañuy jouer loo xam ne wax dëgg yàlla wut ak réalité dëkk bi tamit dafay xaw a metti yooyu yëpp mu ngi ci biir nga xam ne daal maanaam fi mu toll nii demaan nañ ba toll foo xam ne ni ci wàllu série yi mooy euh, bu ñu eggee ci weer wi nga xam ni weeru ramadan la dañ ci gis ñoo xam ni moom xam nga dañuy njëkkante xam nga lan la ko da ngay gis ñuy jàllale ay façon terme yoo xam ci weeru koor vraiment ci ay série yoo xam doo xam lii ban njariñ la quoi ak lan la mën a indil sunu gone yi ci ay éducation yoo xam danañ leen ko mën a royee loolu tamit lu mat a bàyyi xel la waaw moo tax Ramadan bu ñëwee dangay gis ay façon série yu nekk te loolu yaakaar naa ni jékkul jaaduwul am na ci ñoo xam ne nag moom vraiment dañuy def lu am solo ndax ci biir série bi dañ ciy defaale ay publicité yoo xam ne nii loolu dana leen mën a sénéral loo xam ne danañ ko mën a dundale seen njaboot lu am solo la ndax loolu moom expérience la te liggéey la te wax dëgg yàlla lu am solo la. Euh, beneen bi ci des tamit moo yi ñu bàyyi xel bu baax xam ni société bi ñoom ñoo ko bokk yaa ngi dégg kenn bëgguñu kenn gaañu kenn ku ci nekk la ngay wutee sa xaalis li ngay dundale sa njaboot xoolal loo xam ne nii maanaam boo ko defee rek doo ci loru keneen du ci loru nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax waaw euh, série yi nag yi nga xam day daw ci ramadaan bi am na ci ñoo xam ne nii ñoom am nañ ci fulla ak fayda euh, daanaka mën naa ne toppatul léegi comédie bi rek dañu xool euh, série yoo xam danay leer lii day yeete ànd ak kii ñu ñu joué ci théâtre bu nit ñi